ñu doole de boo leen gisee nga xam ne ñii ay séeréer yu am jom la ñii ñu am dignité lañu papa ji bu waxee nga dégg rek nga xam ne kii ko am jom la. ñëw na tribunal bu nge doomam toog de d'attente ba heure dem jot mu dem ba bi may ñëw fii ma nga fa toog di xaar doomam te kenn dégg ko ci riir kenn dégg ko sama classe gi moom la ñu dégg ci riir mais nekk ci dëkk bi rek def ci paa bi kenn dégg ko. tantay Adji Sarr bi dëkk ak moom tey moo nekk di fipp wax nit ñi dëgg bi mais il faut arrêter aussi euh, ne benn côté bi rek la ñuy déglu boo bëggul xam doo xam boo gëstuwul doo xam nañu dem laaj ay mbokki Adji Sarr moo gën parce que dox bu tëgg rek ne mbokki Adji Sarr la c'est normal aussi ñu wax nit ñi lan mooy juddu Adji Sarr parce que il y a des causes qui ont amené à cette conséquence trouvé ci benn salon boobu donc je ne cherche pas à atteindre la fibre de qui que ce soit damay wax sénégalais yi juddu Adji pour ñu mën a comprendre mais aussi pour ñu mën a sensibiliser que ne kaawu Adji Sarr bi du kaawu Adji Sarr donc ça touche beaucoup d'autres femmes beaucoup d'autres femmes yoo xamante ne xam nga Adji Sarr elle ne pas concernée par le refus de paternité la souffrance des enfants yoo xamante ni ñi ngi ci réew mi jigéen ñi di leen jur te góor ñi duñ leen reconnaître cette souffrance là man foofu laa bëri parce qu'il y a beaucoup de connexions il faut pas se limiter aujourd'hui il faut lier li nga xamante ne mooy souffrance yi xale bi dund bi mu nekkee xale yeneen xale ñu koy dund y a des milliers d'enfants au Sénégal tey seeni papa reconnaître ñu leen Adji Sarr a cette blessure en elle qu'on le dise ou pas donc je ne cherche pas à atteindre quoi que ce soit je n'ai pas d'objectif dans ce sens alors alors Gabriel si ci loolu euh, souvent dañuy wax juge bay juge sax xam naa ne amul amul certitude waaye man dama man awma certitude man benn certitude laa am c'est que ne jigéen bu yuuxoo ni dafa am lu ñu ma def mu daw si si man man je ne cherche pas de pour soutenir Adji Sarr Françoise Hélène ma nekk États-Unis moo mobiliser ay éléments am diggante Dakar diggante Kër Massar Pikine ak Thiès Françoise Hélène Gueye je ne pense pas qu'elle ait 5000 à donner à chacun xam nga aussi les manipulations viennent de partout doo ñëw euh, nit ñi ñëw di dóor jigéen ay ay mbokki Adji Sarr poul bi tasaaroo nit ñi bàyyi fa pancarte yi am ku ci teg 5000 rek ne déedéet Françoise Hélène Gueye elle a ses propres moyens mi nekk États-Unis di jël xaalis léeg-léeg sax di fayal Adji lu bëri di ko jëndal lu bëri parce que Françoise da koy def. d'accord Adji Sarr tey bu solee yenn yëre yi Françoise da koy dama koy wax Françoise day jënd ay valises yëre yére ko États-Unis ñëw may ko. donc tey Françoise Hélène Gaye c' est tout à fait légitime qu'elle mobilise pour ñu dem jàppale doomam c' est mais bu fekkee nit ñi tamit def nañ si ay manipulation et tout ça y a pas de problème man damaa rëy làmmiñ liñ ma fa jàppee policiers yi wax dëgg yàlla ñoom seen liggéey lañ doon def man maa ko doon rëy làmmiñ donc mais dara xew fa d' accord duréwul sax cinq minutes day di met Gabriel ak fekk dalal la ci plateau bi merci jërëjëf sànq dama la dégg nga ni euh, Adji Sarr la na na loxo ay organisation féminine man bëgg naa xam fii ci plateau bi ñan ak ñan la parce que am na si ñoo xam ne ñoom wax nañu ni pour gisoon Adji sax c'était un problème ah man de Adji moo wax ma dégg Adji Sarr moo wax ma dégg keneen waxul daf ma woon ne ma Gabriel ma ne ko naam yow rek yaa ma dese ñin ma santoon ma dem ci ñoo ñëpp woo naa leen ñu bañ ba ma ñëwee na ko yow kan nga woo mu ne ma woonaa diw ma ne ko kooku xaw ma ko mu ne ma woonaa diw ma ne ko kooku xaw ma ko xam nga man mënuma ko gëm parce que bu ma nee woonaa ku ma xamul dem na fa ko ne ko